fii ba la 24 octobre Orange Money baaxee na leen bés bu nekk ñaari envoi yoo xam ne doo leen ci fay dara dolli ci yeneen ñaari retrait yu toll ba 2000 francs yu dul am benn frais itam gën kaa xewuleel ci jeez 144 jeez mbaa seen application yeneen i leeral ci orange point sn slash orange tiré money orange man daal tey aw ma envie jàng dara tey man sax aw ma envie jàng day xaar tey bu mu ñëw buñ ko may dara gis nga suñ ko mayul dara na jël bagage am mu dem mu doon ni dawalkatu fas yi. Ça va c'est, c'est. Ça va bien ça va. Bien, merci. Kaw, euh, je suis venu prendre un autre livre s'il vous plaît. waxuma livre ma li var waay xaar ma fii mooy daw dem fay sama facture ndox bi su ma ko deful day coupé ma. day coupé mais mais demoo fenn ma déglu ma toogal toogal ma wax toogal fa toogal ma toogal mbaara ko jàmm kaw je te quelque chose. waaw de très simple. waaw kaw xanaa amoo application Orange Money. yow yaa ma ko jógalaal keroog. waaw mais ak sa application orange money soxlu ngay dem ci caisse wala agence wala direction générale soxlu ngay bouger ak sa application orange money tu peux tout faire fay sa facture ndox sa facture courant fay ci sax ay marchandises et tout. jiw day nag sa portable moom sa portable. <laughs> sa orange money am na xaalis. waaw am na xaalis. jox ma <laughs> ci tey nag ma rek may fay fii fa fak du ma posé. andil al ma. ndeke kii ndeke. numéro compte moo nekk. mooy nekk noonu waaw c'est bon. waaw mooy nekk noonu waaw. ok lii lan la. waaw. facture paye. waaw paye <laughs> fay nga ko. avec ça nga bëgg fi bouger. léegi yow oh, seen. yaxanal nga sa poche doo bouger doo ran doo pare am nga sa temps. te du yàgg nii toog kon ne say application Orange Money bi doo sonn. Bonjour monsieur Diagne. man la monsieur dañ qu'est-ce qui se passe. dañ lay nuyu. Ah, de. ah. assis calme-toi. hey. calme-toi dégg ngeen. ne me fais pas peur doucement. Hum? Salutations. Un plus un. Mieux jour. de sanction. Ok Oui. L'octobre, ma mère, l'Afrique, l'octobre, point d'interrogation. 4 octobre. Aujourd'hui, on fait la cour de renforcement. Renforcement. Problème de quoi Problème mu maths ak ku leen wax loolu. suñu pap wax nañ ko ko mu ne ñu ba nga ñëw nga expliqué ñu ko. seen pap la ma war a woo bu fekkee ni bëgg na yenn cours yi dama woo parce que timit yéeg saa ñëw rek mat octobre kii nii ñun la mat indi ay problème génn gu ma sax ngay bëgg mat noonu timit mat dañ koy préparé. on se prépare la man. parce ah, si jël neexul ba neexul jibi tay dama lay may liibar ba pare Sénégal nag duñu war a xam Sénégal <laughs> orange li muy liggéey de man sama mbokk yi naka si àll bii lay wax. ñoom Samba tergaal yi naka fuuri yooyu yëpp day yore xaalis def ko si gabagab bi dugal ko foofu yëpp mënoon nañ ko dugal si. orange loolu waxul dugal sa application orange money. waaw et loo bugg a def def. c'est <laughs> ah. je pense que. les mille je et une nuits. ok. sëy sëy sëy c'est bon. Euh, fi sabilillaay del teg si taabal bii dara. fi sabilillaay del taabal bii dara. waaw del teg si taabal bii dar man sama xarit. bu ma dinaa am lu ma dégg nga. alhamdulilah man comme fayal na ma facture orange moo ne fii rek sant yàlla <laughs> nag dafa efficace <laughs> maa ngi xalaat ko mu toogal jibi ndeke dafa dof kono français bu dof la kono bopp bi baax na il faut nous aviser il faut nous aviser ils vont me faire un appel dis-moi que je prépare la cour de temps ou à la cour de ça mais c'est pas vous qui décidez votre cours ok Non, passe de grosse. Jeudi 5 4 4. Monsieur, jeudi donné. C'est abrégé. Ah. Bon. Aujourd'hui, c'est les cours, euh, renforcement. Qu'est-ce que vous voulez? Jimon, qu'est-ce que vous voulez faire? point en haut. Point. C'est pas point, c'est rond. Voilà, un point. Il faut apprécier la pointe. Ok. Je suis abrégé, mais Mais c'est bon. Euh, le plus important aujourd'hui, c'est le cours de renforcement. Hein? ñun suñu papa daf ñu ne ñu wax la nga dimbali ñu ci mat ak observation waxuñu ay renforcement. renseignement bagage. ranger boobu ranger français la table français bi daal ñëw kër gi wala mu jàngale nekk fii di làkk français bi nga kenn xam wax sax te ñëw rek dinañu dégg. moom fu mu foree kii de. le 24 octobre orange money baaxee na leen bés bu nekk ñaari envoi yoo xam ne doo leen ci fay dara doole ci yeneen ñaari retrait yu toll ba 2000 francs yu dul am benn frais itam gën kaa xewuleel ci jeez 144 jeez mbaa seen application yeneen i leeral ci orange point sn slash orange tiré money orange